espagnol. acca bismillah habla español. ah poco. poco. si vale. damaa <laughs> garaaw de. macha allah léegi lu tax ma wax loolu da nga ne l'état a laissé faire. qui est l'état man dama ne. l'état a été complice de ce qui a été fait. parce que le domaine il est contrôlé par l'état. attention l'état n'a pas laissé faire l'état a été complice. Mhm. plus loin. si parce que l'état c'est toi l'état c'est moi waaw maa ko sañoo wax parce que si état laa bokk. Mhm. ci état nga bokk état mhm. buñ ñu ko nee du ma xeex ak état. wala état dafa am doole c'est parce que doole bi ñun la. ñun ñooy état. si par ñun dañu choisir ñi nga xamante ne dañu xalaat ni seen xel ak seen kàttan ak seen mën-mën. mën na doxal benn domaine bu précis. de président de la république. à chef de quartier. Parce que le chef de quartier, il est président de la République là où il habite. Dans son quartier. Et le président de la République, ça commence chez soi parce qu'en tant que chef de famille, mm président de la République et ce premier ministre mooy sa soxna. say doom nga délégué leen ay pouvoir par rapport à leur âge. Mm-hmm. parce que dina benn instant kii dina togg kii dina raxas douche kii dina lem kii dina def affaire. Mm-hmm. n'est-ce pas. donc pour si loolu espace amul dëgg la. nañu jël corniche ouest bi. xoolal ni ñu ko defaree. nit ñi nit ñi demee foofu. Mhm. léegi xoolal plage publique yi. Mhm. week yi ni muy feesee. ça veut diir que ni dafa indiwaat li nga wax amuñu espace. Mhm. dangay ngay obligé yow tey ji soo buggee am sa benn espace de loisir tuuti. ci obligé nga dem si benn piscine wala benn plage privée. pour nga mën a am. loisir loisir boobu. terrain basket bi suñu ay wëjur doon basketee jaay nañ ko. terrain football bañ daan footballee jaay nañ ko Auchan moo fa nekk aw ma problème ak Auchan mais mën nañ leen utal espace feneen jaay nañ ko ay privé ñu ñëw tabax fa ay building te en plus de ça dafay jur leneen lu raw sax nit ki mais écosystème bi daf koy affecté environnement bi environnement dafay affecté mhm. tey ñu ngi def ay campagne partout dans le monde pour reboisement mhm. mais reboiser mais la nature elle est déjà elle, nature naturellement dafa amoon système am ñun nit ñu ñëw yàq système bi ñu ne léegi dañuy defaraat mais fi ngay defar day am espace hmm. moo tax dakaar dafa xat hmm. il faut que ñu désengorger Dakar zone yi nga xam ne c'est des zones dañ ko occuper hmm. si occupation boo xam ne baaxul zone ndox nga dem dëkk fa nga sëkk ko dëkk fa wetu géej zone am nañ zone yoo xam ne waroo fa dëkk parce loolu dafay baax dafa baax ci yow ci sa yaram ci wér gu yaram mais aussi espace de loisir bi nga xamante ne jeune bi dafay dem di fa foo amatul et loolu dafay delluwaat ci sécurité sociale parce que parent yi léegi bu seen doom yi génnee dañuy tiit dañuy tiit ku sa doom parent bu génn sax yow da ngay tiit balaa ngay dellu sa léegi sa doom bu ne bu la tàggoo damay dem fubbali amaana géej la dem da ngay xëy ngoon ñu ne la lab na bëri donc loolu yëpp encore l'état qui est man ak yow ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital war nañu xoolaat fi ñuy tabax ak ni ñuy tabaxee mais aussi domaine war na xool ñi fi ñuy joxe terrain ak fi ñu koy dagg am na solo. Khoureychi doyen Khoureychi Thiam notre second